mbokk yi ñu ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax ci seen àndax ñun ci rajo Rewmi FM tey nag dañu am mbégte bu yaa dalal ki nga xam ni moom moo di Massiré Souané nekk maire bu Salikégné euh, mbégte la ñu dalal la fii tey euh, Massiré Souané. merci beaucoup monsieur Dramé maa ngi lay nuyu di nuyu sax équipe bi yëpp di nuyu tamit. Euh, Euh, auditeur auditeur réew mi FM euh, ni ñu ko waxee ni léegi noonu la man maay maire euh, commune bu Salikégné maa ngi tudd Massiré Souané nekk maire depuis 2014 Salikégné nag mu ngi ci département Kolda région Kolda d'abord département Kolda arrondissement de Dioulacolon nekk commune depuis 2008 mooy découpage bu Ablaye Wade moo ngi defoon commune depuis 2008 mais laata loolu Salikégné communauté rural la woon euh, si biir communauté rurale boobu euh, Salikégné omboon na euh, presque quatre-vingt-deux villages voilà après découpage 2008 bi moo ñëw érigé en commune comme ni mu érigé yeneen dëkk yi comme Dabo Sarioba ak Pata ak Yorofula à l'époque dans le même département Euh, ñu ngi situé nag juste à la frontière parce que diggante Salikégné ak frontière ay quelques mètres la. soriwul soriwul frontière ak Guinée-Bissau. Euh, nekk euh, une commune paisible avec des population engagées ay Pël ay Soose ay Wolof ay Joola ay parce que ethnie Sénégal yëpp ñu ngi retrouvé wu si biir commune Salikégné Euh, nekk nag une jeune commune n'est-ce si arrondissement bi arrondissement mu ngi composé mu ngi am six communes donc euh, lii mooy une présentation brève de la commune de Salikégné tur bi Salikégné lan lan la lan la wundu Salikégné tur bi làkk soose la waaw ah, puisque buñ ko def defee buñ defee une traduction littérale mooy Salikégné euh, mooy bërëb jullikaay voilà boo xamante ne bàyyal la boo xamante ne jullikaay la. di dajee julli n'est-ce pas mais bàyyal bi bu ñu comprendre sens bi keñe bi mooy suuf n'est-ce donc euh, on suppose que barewoon na suuf n'est-ce donc euh, foofu la nit ñi daan daje euh, pour jaamu yàlla. am na solo kon mbokk yi ñu ci bari tey yaakaar naa ni découvrir nañ dëkk bi di Saly Kégné alors Saly Kégné yaa ngi wax ni am na frontière ak li nga xam ni moom moo jëm ci ak Guinée-Bissau tey. li nga xam ni moom moo jëm ci dëkk bi fan ngeen ci tollu ci wàllum euh, infrastructure dañuy jël secteur par secteur tey lu mel ni wàllum pàcc mu nekk lu am solo euh, fan ngeen ci toll ci ci ci commune ba. buy euh, bu ma nee Salikégné mu ngi ses ci frontière Sénégal ak Guinée-Bissau loolu dinañ jox benn idée idée boobu mooy lan mooy Salikégné dafa nekk dans une zone enclavée. n'est-ce pas diggante am Dakar euh, moyenne de à peu près cinq cent cinq cent kilomètres donc loolu sa suppose ko dëkk la boo xamante ne dafa enclavé yoo euh, boo dee enclavé dëkk bu enclavé rek déjà euh, mooy dinañu bare mooy jafe-jafe yi euh, mais à niveau jafe-jafe dañ ko transformer en opportunité n'est-ce pas jafe dinañ ci ñëw waaw mais ci wàllum paj santé santé bi effectivement bu santé bi ñun am nañu dispensaire mooy poste de santé boo xamante ne muy couvrir yeneen Euh, trois cases de santé euh, mais euh, lu poste bi lu mu am ci population malade n'est-ce pas weesu na population commune Salikégné rek hmm? waaw puisque am na une partie de la commune de Guérero bu ñu wër foofu lay ñëw pour ñu faju une grande partie aussi de la population de la Guinée-Bissau foofu lay ñëw pour faju ji puisque offre de service xam nga nit ki loolu lay ut foo xamante ne su fa demee dina am n'est-ce Euh, satisfaction voilà li lu mu soxla foofu lay faral di dem ñu ñun loolu moo ñu dal moo tax suñu rôle boobu du du du léegi la commencé c'est-à-dire que yàgg na jouer rôle boobu ci biir ci ci ci gox boobu ci côté boobu donc euh, sur le plan de la santé ñu ñuy endosser en tout cas euh, la plus grande population euh, entre les deux communes mais aussi une partie bu population bu nekk l'autre côté de la frontière parce que ñu nag ñooñu presque même communauté bi la frontière bi rek moo ñu séparé mais même peuple bi la ñu donc moo tax suñu poste de santé c'est vrai que dispensaire la mais lu muy euh, statistique yaa ngi fii au niveau départemental bokk nañ si poste yoo xamante ne poste yu gën a fréquenté n'est-ce pas est jumtuwaay yu war foofu def nañ ko ci commune ba wala yow lan nga ci indi comme saafara. waaw moo tax bi ñu ñëwee ñun 2014 dañu def état des lieux ñu gis ni poste bi. Euh, c'est vrai que muy accueillir ay malades yu bëri mais dafa am problème matériel surtout maternité bi ñu def euh, une euh, évaluation du matériel ci la ñu commencé di di doter post bi am matériel au niveau de la maternité ba ci échographie boo xamante ne c'était une première que bu njëkk ba euh, jigéen ñi bu ñu soxlaan def écho dañu def dañu doon def 33 kilomètres ñëw Kolda aller retour def seen écho après ñuy indiwaat cliché bi léegi ñu ne ñun il faut que ñu ut si ñu am si solution yàlla jàppee ñu am suñu machine échographie euh, jigéen ñi soxlatuñu di dem Kolda pour def seen échographie sur place lañ koy def noonu lañ defee tamit pour maternité bi ay lii d'observation euh, aussi dotation en médicaments n'est-ce pas donc foofu la yemoon mais amoon na effectivement ay yeneen réalisation yu ñu war a bëggoon def mais puisque commune bi amuñu doole noonu yooyu yëpp mënuñu mënuñu ko défendre moo tax le petit matériel bu ñu xamante boo xamante ne euh, mënul ñàkk n'est-ce pas si yooyu lañu accenté woo boo dotee le poste euh, minimum de matériel même si ba léegi nii des na. waaw des na parce que loolu laa bëggoon wax parce que euh, nga sekk ak frontière est-ce que tey kon plaidoyer bi ngay lancé tey mooy gouvernement bi tey ñëw wàllu leen dispensaire bu fekkee mun na fa yokk ay jumtuwaay yoo xam ne faju ay bërëbu fajukaay la euh, nekk na lu am solo parce que yaa ngi koy wax frontière ngeen dendal. te loolu itam lu am solo la faaw ñu bàyyi ko xel. Mm-hmm. effectivement loolu je pense que état bi euh, xam na ci dara puisque bu leen fàtte bul fàtte ne président taxawal na ay programme bëri mel ni mel ni programme mel ni Puma voilà programme yooyu Euh, pour jàppale communes yu mel ni comme Salikégné communes yi nekk ci frontière bi puisque déjà question de souveraineté la pour communes yooyu am le minimum sur plan de la santé puisque foofu lañ toll bu ñu tollee ci éducation dinaa ci wax mais la santé il am suñu autonomie il ñu am euh, ay postes de santé waa euh, yoo xamante ni soxla du ñu soxla ñun en tout cas dem ci beneen réew pour fayu ji pour loolu nag Euh, wax naa ko sànq ñun def nañ li mën a def état bi tey mu si siy jàppale parce que soo gisee tey ñu ngi recruter ay agent si biir poste de santé bi pour dooleel infirmier ak sage-femme bi état mu ñu jox ay ay moyens supplémentaires. est-ce que yéen leen di jox wàllu subvention. mais bien sûr ñu leen jox subvention ñu ñu leen jëndal ay garab wax naa ko sànq ñu ngi recruter ay agent communataire pour ñu jàppale leen si liggéey bi. donc yooyu bu ñu ko defee c'est pas parce que commune bi am na doole boobu mais c'est parce que état mu ñuy jàpp si si ginnaaw mu ngi ñuy jox ay ay euh, ay dotation n'est-ce mais heure bi ne lu ñu soxla. lu gën a la. mooy am dispensaire bu bees. waaw su ma nee dispensaire bu bees poste santé bu bees ëmb na lépp mooy infrastructure yi mooy équipement bi nest muy personnel bu doy muy matériel roulant surtout ambulance. amul ambulance foofu tey. am na ambulance mais am na boo xamante ne commune moo ko moom. n'est-ce pas te ambulance bi dem na ba màgget léegi. donc. Euh, euh, changer ko. waaw il ñu changer ko parce que lu muy lu ñuy coûter ci dépense moo moo moo moo moo ëpp donc jot na ñu changer ko. moo tax mën na la poste de santé bu bees boo xamante ne dina am. waa mooy suñu yitte. mais ci jamono jooju yaa ngi dégg Sénégal fan yi actualité bi mu jëm ci wàllum pàcc ak mbirum sage-femme yaa ngi koy dégg ci diwaanu Louga loolu tam xam nga euh, maanaam day lu mën a am fële la. waaye loolu pour ñu bañ fa yegg ndax am yéen itam yéen a ngi diisoo yéen a ngi waxtaan ak seeni personnel pour yu jëyee yu mel noonu mu bañ fa am. waaw euh, personnel bi effectivement suñu personnel la mais ñun en tant que commune. en tant que communauté dañu am part de responsabilité ci fonctionnement poste santé bi moo tax ñu am suñu CDC CDS bi n'est-ce pas euh, population yi ñooy. ñoo nekk ci ci euh, structure boobu CDC donc ñoom Euh, cette mission c'est clairement défini n'est-ce pas xam nañ li war a def mais surtout lu fu ñuy insister mooy yar population bi mooy sensibiliser population bi puisque santé tamit du dem rek def les soins ou prendre les soins mais non y a un travail en amont qu'il faut faire mooy population bi am sensibilisation ñu sensibiliser la surtout en milieu rural ñu soxla nañ ko te CDS bi loolu la nekk di def ak les agents de santé euh, li jëm ci accueil bi <clears throat> ku nekk euh, am na en fonction de ces réalités ñun euh, c'est vrai que euh, lu ñu lu am si yeneen postes yi peut-être am nañ foofu am nañ ko foofu mais ñun on s'est débrouillé pour que euh, suñu personnel communautaire bi ñuy recruter ñu jàppale agents yi si accueil bi n'est-ce pas déjà def tri bi euh, orienter les malades ce pas ku ñëw avec une certaine tension da ngay fekk koo xamante ne mën na laa dalal explication ou bien mu recevoir la li nga am si sa si sa loo xamante ne war nga ko xam war nga ko wax nga wax ko comme ça mu intervenir auprès de de chef de poste euh, pour que effectivement yow sa sa jàngoro ñu mën ko saafara ak euh, avec la plus ndax itam léeg waxtaan da ciy baax mais ci wàllum santé. comme ponk la bu am solo ñu jàll ko waxtaan itam ci wàllum éducation yaa ngi may wax dafa mel ni éducation lu la yitteel la ci commune ba. oui en tant que enseignant de formation je pense que amuñu droit te tamit euh, ak àdduna euh, bi fu mu toll nii je pense que éducation ñëpp war ci jàpp. Euh, bu ma nee éducation nag wax ma rek français mhm. n'est-ce euh, enseignement coranique loolu mhm. yëpp ak alphabétisation tout est tout mhm. donc ñun globalement lañ def ñu jël ko en charge moo tax depuis le début 2014 ñu mettre en place une structure boo xamante ne moo ëmb lekk lépp lu loo xamante ne moo mooy moo chargé wu si lu lu lu jëm si eh, éducation mooy clé comité local de l'éducation et de la formation donc si euh, boobu tamit am nañ ay école élémentaire am na ay daara am na ay euh, école arabe am nañ ay ay centre d'alphabétisation donc euh, yooyu yëpp c'est pour que ñu doon ñu ñu ñu may population bi n'est-ce pas occasion pour ñoo xamante ne ñu ngi ci système bi mooy élémentaire ba euh, moyen secondaire pour au moins ñu mën leen gunge euh, en tant que zone rurale ñu mën a am le minimum pour ñoom tamit ñu mën a suivre puisque ñun foofu amuñu école privée n'est-ce ay école publique la ñu am donc il faudrait que commune bi jàpp si jàpp euh, accompagner suffisamment équipe pédagogique yi accompagner suffisamment euh, euh gouvernement scolaire yi. Mhm. pour ñu mun a def ay résultats je pense que boo ngeen bu ngeen visiter le résultat au niveau niveau national. Mhm. di ngeen gis foofu tur Selkindja surtout au niveau du. am na benn euh, aspect bi nga jox euh, wàllum jàng bi mais ci l'école yi maanaam subvention yi li nga xam ni moom moo jëm ci wàllu scolarité bi naka la demee ci école bi ak abri provisoire yi itam surtout. waaw loolu nag boobu nag mooy suñu problème. abri provisoire provisoire mhm. je pense que Sénégal di jooy abri provisoire Salkine moo gën a mën a jooy. maanaam seen école yëpp abri provisoire la. donc élémentaire yi moom tànn na tuuti mais problème mooy lycée bi. Mhm. lycée bi presque c'est c'est presque lépp abri provisoire la. puisque demande bi du ñu am dañu am comme demande de construction de salle de classe moo ëpp donte euh, comme euh, conseil départemental bi def na ci euh, ay jéego voilà puisque en un mandat président bi quand def na tout pour mu tabaxal ñu trois salles de classe mais doyut li fa am comme besoin ëpp na presque quinze quinze salles de classe donc xam nga loolu moom vraiment euh, ça veut tout. école boo xamante ne même bu dee euh, deux salles de classe. Euh, école boo xamante ne dafa am besoin en construction wala école boo xamante ne élèves yi ci abri la dugg. bon dañu xam ne vraiment école boobu am na lu ñu lu ñu soxla que nekk dans une classe bien construite je pense enseignement bi sax ci lay ci lay gën ci lay gën a jàll mhm. donc moo tax ma ne la suñu problème actuellement mooy abri provisoire yi mhm. le reste duñu subventionné jox élèves yi pour ñu jënd ñu jëndal élèves kay accompagner accompagner les les les naka nga leen di accompagner mooy euh, chaque ouverture dañ lay mettre à la disposition des cahiers des fournitures culture de toutes sortes n'est-ce pas avant loolu sax dugg nañ ci classes yi écoles yi réhabiliter toutes les salles de classe pour élèves yi mun a nekk dans les dans les bonnes conditions mm-hmm. loolu mun nañ ko def suñu budget attan na ko moo tax depuis 2014 ñu ngi ci dañuy réhabiliter ay salles de classe ren jii nii war nañu defaraat beneen clôture pour l'école 1 nest pas loolu suñ budget atteint nañ ko mais lu ñu atteindre mooy tabax ay classe salle de classe yu bëri te loolu je pense que foofu la ñu xaar programme état foofu la ñu xaar suñu partenaire parce que état mooy suñu premier partenaire il faut le dire aussi donc euh, ñu ngi ci lii yeggee nga ko ministère de l'éducation oui oui euh, dañuy def euh, plaidoyer Euh, mais aussi am nañu ñu am nañu suñu Euh, conférence d'harmonisation yu ñuy def euh, si occasion yooyu euh, tout ce qu'il y comme manquement nest pas si comme domaine de compétence yi dinañ ko souligner jébbal ko gouverneur gouverneur yoo nekk acquis de droit. ni ci comme mi ngi am saafara. oui effectivement effectivement xam nañ ne yëg nañ ni dañuy boole si benn programme buñu xaar tuddee programme de de de comment on appelle ça. Euh, de résorption mhm. euh, d' élimination des des des des kii programme boo xamante ne dafa ñëw pour euh, éliminer tout ce qu'il y comme abri provisoire mhm. mooy abri provisoire ñu remplacer leen Euh, par des salles de classe programme boobu euh, xam nañ état du Sénégal am na programme boobu te ñun bokk nañ si programme boobu voilà mais problème mooy boo amee problème tant que gisoo ci saafara wala gisoo ci solution da nga koy yàkkamte te école moom euh, si warul xaar quoi voilà mënul xaar parce que octobre octobre la rek la mënuñ ko repousser mënuñ ko retarder mhm. su ñëwee ñëw na donc te xel ak élèves yi nañ seen classe mais ci jamono jooje ba tey ci actualité bi gis nga fi démb wala barki démb sax ab vidéo xale bi nga xam ni euh, mbirum violence wàcce rek xeex mu jur loo xam ne lu doy waar la ci euh, fële nga xam ne moo di ca diwaanu Karang donc loolu euh, yow en tant que enseignant lan la lay inspiré. waaw image dañ koy ñaawlu surtout que à plusieurs niveaux eh puisque ay image yoo xamante ne xale war ko mën a gis sax. Mhm. mais malheureusement système de censure bu ñu am fii dafa faible. voilà du si image bi rek. Mhm. si télé yi ci net bi xale yi ñu ngi leen di permettre di xool n'importe quelle euh, image quoi. Mm-hmm. donc euh, te loolu waroon na mën a ñàkk. Mm-hmm. Euh, mais man li ma ci am comme jàngat mooy dañu am effort bu ñu war a def en matière d'éducation mais aussi en matière de protection de l'enfant. Mm-hmm. dañu war a protéger enfant yi. ay kuréel am na fi ah? am na fi effectivement. su ma si waxee ñun ñu ngi si depuis deux mille deux mille quatorze. donc ñu ngi si frontière. xale yi ngeen gis fii ay taalibe yu bëri foofu la ñuy jaar ñëw fii n'est-ce pas moo tax depuis très ñu boole Salika Niass ci lutte bu ñu am bu ñuy def pour euh, l'élimination de de de de la mm-hmm. en tout cas lépp lu ñuy def pour ñu gën a euh, aar xale yi mm-hmm. Salika Niass def ci bokk mm-hmm. donc euh, image yooyu loolu la ma jox bi ko gisee sama xel ci loolu la dem lu ñu nekk di def au niveau de au niveau de la commune de Salikégné pour au moins euh, protéger les enfants accompagner leen pour ñu mën a màgg dans les meilleures conditions parce que solution pour man loolu rek la li si des euh, nii dañuy wax dañuy nakaarlu mais tant que agir ñu il faut que ñu agir mhm. agir mooy du du constater rek boo constater problème da ngay jóg pour saafara ko voilà te ñun je pense que euh, ci ci réflexion boobu lañ ma la ma jox bi ma gisee image yi donc ñun ñu si euh, sur la bonne voie bu ñu teelee xam ne bu ñu teelee jóg jog pour protéger pour xaar ale euh, aar xale yi mm-hmm. donc am nañu comité communal de protection boo xamante ne ñu ngi coordonné ak euh, le comité arrondissemental comité arrondissemental mu ngi coordonné ak le comité départemental yàggul ni sax au niveau national dañu mettre en place une stratégie les mm-hmm. stratégies boobu ñu ko mettre en en œuvre je pense que acteurs yëpp dinañu gis seen bopp acteurs yëpp dinañu xam réellement lan la ñu war a def dans le cadre de la protection mm-hmm. te boobu dina dinañu jàppale trop euh, si si si si éducation xale yi mm-hmm. si gungi xale yi ba ñu màgg te je pense que loolu bu ñu ko amee ak yeneen euh, plus lii nii li ma wax nii côté protection la mais am na côté éducation boo xamante ne waaw mun nañu war na mën a appuyer n'est-ce pas les les les maîtres mais aussi mettre en place dans les écoles mm-hmm. ay jumtuwaay yoo xamante ne mun nañ observer les cas de violence xam naa xanaa sa salikeñe dafa am benn mm. représentation bu am solo ci li xam ne moo jëm ci njàngum euh, alxuraan bi foofu waaw waaw waaw d'ailleurs loolu non seulement tur bi kese wone na ne effectivement am na ay jullit am na ay euh, ay euh, ay foyer religieux yoo xamante ne ñu ngi foofu di liggéey te actuellement sax ñu gën a dominer ñooy sont des jeunes yoo xamante ne dañu génnoon jàngi ji ñoom ñooy dellusiwaat mm. di jàngale seen kii am nañu des des des des écoles yoo xamante ne typiquement arabe la donc euh, moo tax il faut que ah, effectivement ah. parce que effectivement ñu ngi si sama biir commune te ñu ngi encadrer xale yi ñu ngi jàngal xale yi foofu ñu intéressé si lu ñuy def voilà mën a leen accompagner mun a xam tamit lan lañu def foofu donc moo tax on a tout fait pour ñu intégrer dans nos planifications mais aussi mettre leen en rapport avec les structures de l'État parce que état tamit dans tous les secteurs dafa prévoir ay ay ay structures ñu mën a accompagner les initiatives au niveau de au niveau de la base donc euh, pour man. Euh, mënuñ tudd éducation te duñ li lañ ci boole. Hmm. voilà éducation ñëpp si lañ bokk. am na solo mbokk yi di dalal tey ki nga xam ne moom moo di Massiré Souané moom mooy euh, maire bu Salikégné moom la ñuy dalal tey ci émission gox bi mais monsieur le maire jafe-jafe Salikégné lan la. bon wax naa ko sànq au départ jafe-jafe euh, ñun dañ ko bëgg a transformer tuddee ko ay opportunité ah parce que jafe-jafe boo gis mhm. opportunité la ah, léegi wax ñu jafe-jafe voilà ba wax naa ko sànq mooy enclavement bi mhm. ku tudd enclavement mooy nit ñi dañuy am problème pour egg fi nga nekk wala yow mi pour nga jot yeneen Euh, service yi day day compliqué parce que da ngay def euh, da ngay da nga siy hmm, da ngay daw da ngay daw n'est-ce pas euh, mu ngi si frontière bi mais digganteem ak RN RN route nationale bi 33 30 kilomètres la 30 kilomètres yooyu si à latérite. Hmm. loolu ñu tabax ko. obligatoirement il faut ñu defar goudron. bépp waa boo taseel boo génnee fii introsé le premier waa si li mu bëgg actuellement ñu defaral ñu ñaata at yéen a koy xeex depuis indépendance loolu yàgg na de yàgg na trop depuis salkeñe nekk salkeñe ñu ngi xeex pour yoon boobu ñu bitime ko voilà mais c'est vrai que euh, commencé nañu dégg ay piste de solution. yow nag état nga xaw xaw gis nga monsieur le maire. Ah. fii ak raayal rek euh, ah. saafara bi saafara bi du ñëw. Ah. il nga mën a wax jafe-jafe yi ñu mën a xam. waaw pour man communication. Hmm. Euh, c'est vrai que da ngay wax li nga bëgg. mais tamit da ngay reconnaître effort bi. Euh, waaw hmm. parce que y a deux ans de fii di nga xam ne vraiment yoon bi baaxul. Hmm. mais état def na effort. avec ces démembrements ñu euh, euh, réhabiliter ñu ko. yoon bi te même anne boobu y a deux ans de cela président jël engagement que. Mm-hmm. yoon boobu état du Sénégal léegi moo koy moo koy bitimé. Mm-hmm. xam nga avancé la. te nee naa ñun depuis indépendance depuis CEDEAO en tout cas ñu commencé dégg CEDEAO. Mm-hmm. dañu mës a wax ne CEDEAO mooy mooy defar yoon bi. léegi nag xaar nañu bi ay deux deux mille vingt CEDEAO gisuñu ko dégguñu ko. léegi bu état du Sénégal jël engagement avec euh, à la la plus haute autorité mooy le président de la République jël engagement ko dina dina dina bitumee yoon bi donc il faut loolu tamit ñu wax ko changement la na la nekk le fait que ñu jël ko en charge rek ça veut dire que léegi ñu ngi si bokk nañ parce que bu jekkoon dañ noonu wax nii rek def dem nañu marche ñu jàpp ay éléments salikene mhm. def na lu ne ay sit n'est-ce pas mais loolu taxul ñu ñu am solution n'est-ce léegi nag bi président jël engagement ko yoon bi dina ko defar je pense que loolu loolu kay fu mu fépp jaar war nañ ko mën a notifier hmm. war nañ ko mën a wax hmm. pour nit ñi xamee ko noonu n'est-ce pas boobu tam jafe-jafe la euh, ak ban encore waaw jafe-jafe boobu tamit il faut ñu àggale li ma doon wax hmm. président jël na engagement n'est-ce wax na ko ci conseil des ministre ñu réhabilité ko horizon 2021 22 horizon 2022 lay neewoon dañ koy bitimé te yàggul ni mooy émission bu mu amaloon ak xale yi jokkoo ak Macky waaw Kolda Kolda waxaat na ko ci je ñëpp dëgg nañ ko mhm. te Salikégné bokk na avec d'autres routes n'est-ce pas bokk na si euh, programme boo xamante ne état bi moo moo moo ko jël en charge donc loolu nañ ko euh, mën nañ ko rafetlu mais en même temps dinañ ko dinañ ko topp. du rek mu gaaw quoi voilà par exemple wax na ñu bari non dañ koy topp dama ko wax ni rek pour nit ñi xam ne effectivement état du Sénégal euh, Sénégal dafa sensible si question euh, yoon boobu n'est-ce pas euh, à part loolu am nañu ay difficultés. pour xale yi am emploi xëy ndaw ndaw yi ah te loolu c'est pas que c'est partout n'est-ce pas Euh, moo tax foofu tamit commune bi ñu nii rek di wax ne ah am nañu problème mm-hmm. nan dañ ci dañ ci dañ ci jóg. Mm-hmm. voilà du def. Euh, monsieur le maire problème foncier bi itam foofu problème la fa. waaw ñun dañu am problème foncier. waaw commune Salkine d'abord xam nga bu njëkk dama ne woon Salkine bu njëkk ba communauté rurale la woon. waaw pas amoon quatre-vingt-deux village léegi mille 2008 ñu génnee ko ci communauté rurale boobu def ko moom kese commune. est-ce que yaa ngi comprendre Salikeñe kese village ñu def ko commune avec rattachement de deux autres petits villages quoi n'est-ce pas koo xamante ne amoon na possibilité n'est-ce di gérer des hectares des hectares léegi yow ñu ne la ñu confiner la c'est benn superficie bu ndaw hmm. te nga nekk une population rurale boo ne population rurale nit ñi bay lañu am xam ak sàmm mm. n'est-ce pas donc déjà déjà y a difficulté mm-hmm. moo tax foofu tamit ñu ngi xaar état bi pour ñu ñu rectifier mm-hmm. erreur boobu du Sadiki Dieng su ma waxee ne su ma yeneen collègues yi nekk Parta yi nekk Daawa nekk Sareba nekk Parta nag mel na Yoff la mën nañu comprendre li may wax ni parce que ñu ñoo bokk euh, jafe-jafe nest pas donc incohérence boobu ñu ngi xaar pour ñu Euh, euh, euh, rétablir ko ñu rectifier ko pour ñu mun a am en tout cas ñun tamit ay ay ay benn espace bu bu doy pour que nit ñu mun a pratiquer la culture l'agriculture surtout que agriculture bi gis nañ ko mu ngi avancé loo yeneen communes yi parce que là aussi il faut le reconnaître agriculture mu ngi avancé loo yeneen communes yi donc ñun tamit bu ñu amee possibilité nekk dans un monde mun a bay n'est-ce pas te bëgg a bay bëgg suñu xale yi toog bay il faut ñu am espace n'est-ce pas. donc loo yéen a ngi leen di jox espace bi pour ñu bay ngeen mën leen décroiser ngir li jëm ci wàllu immigration bi. mais euh, bien sûr bien sûr euh, moo tax depuis 2017 ñu bind n'est-ce pas pour ñu accorder ñu benn ferme mooy ferme yi ngay dégg nii ferme naataange wala ferme Adila n'est-ce pas en 2020. waaw ñu ñu n'est-ce pas agence bi ñëw. Euh, depuis deux mille vingt et un deux mille vingt et un ñu commencé ci liggéey nii nii nii dañu am na superficie bu yaatu bu ñu aménagé c'est vrai que liggéey bi tardé na parce que forage bi pare na grillage bi presque mettre nañ ko en place mais li des aménagement bu ñu war a def ci biir moo des c'est vrai que andi na matériel yëpp mais foofu tamit c'est une occasion pour ñu ñu dénoncer ko parce que dañu amoon yaakaar ci projet boobu fu mu tollu projet boobu li ma la expliqué ne moo moo nekk foofu forage bi pare na grillage bi defar defar nañ ko mais aménagement bi ñu war a def ci biir moo manqué moo tax moo moo ñu tere commencé liggéey bi te nii nii nii dañuy recruter trente jeunes ñoo xamante ne c'est des candidats potentiels à l'immigration n'est-ce pas am nañu sax ci biir yooyu des immigrants de retour parce que projet bi loolu laajoon dañu war a recruter pas des immigrants de retour mais aussi de potentiels candidats à l'immigration. décroiser leen voilà du décroiser leen sax pour ñu jox leen opportunité parce que. Ah, xam nga ku dem. waaw waaw mu toog. waaw voilà donc loolu la lu ñu lu ñu lu ñu lu ñu laaj. solution boobu lañu leen indil parce que c'est des gens yoo xamante ne ñu liggéey. Mm-hmm. mais dañoo amuloon fu ñuy liggéey. pour ñu liggéey il fallait que ñu dem ñëw côté Mboro côté Joal te ñu xam ne ñu tamit am nañu suuf suuf si bu baax la moo tax ñu nam ñu ñu bëggoon am euh, euh, ferme boobu mm-hmm. euh, bu ñu ko amee dañ ci amoon vraiment satisfaction te ba léegi dañ ci kontaan mais encore une fois lenteur yi mooy ñuy xaw a découragé. voilà parce que mënoo topp benn projet de deux mille loolu mooy problème bi. Ah. dañuy dañuy benn activité. Mm-hmm. après am arrêt te arrêt boobu kenn mën laa expliquer lu waral lu ko waral. n'est-ce pas donc euh, heure bi nii ferme boobu waroon na pare yàgg na. bi gars yi commencé liggéey. Mm-hmm. n'est-ce te euh, li ma ci wax ni mooy ñu recruter ay jeunes. bu ma nee jeune am na ay. les jeunes et moins jeunes. waaw moins moins jeunes. Mm-hmm. te les deux sexes. ay góor ak ay jigéen. Mm-hmm. ñu war a liggéey foofu n'est-ce pas pour ñu def euh, une production. ñu nekk ay entrepreneur ah, li ñu fay am ñoom ñoo ko moom. Mm-hmm. n'est-ce pas ça c'est un. de deux ko seen bopp. seen bopp très bien mais tamit dina permettre ñu jaay image commune bi parce que tey bëgg nañ foofu ñu produir loo xamante ne. képp ku ko soxla Sénégal fii mën nga dem fa pour am ko loolu euh, mooy suñu suñu ambition n'est-ce pas donc euh, c'est c'est gën a ñi effectivement te am sa tamit am lu muy contribuer lu muy jaay ah. waa Sénégal loolu tamit c'est important. politique parce que très bien suñu position géographique mooy Carrefour la. Mhm. te Carrefour boobu mën nañu am un marché international. Mhm. te boobu tamit bokk na suñu projet. yoo mhm. xamante ne loolu moo suñu yitte la. ñu def Salikégna un marché international. yaa ngi ciy xalaat loolu. bien sûr ñu ngi ci du xalaat kese sax loolu mën a xalaat léegi sax mise en œuvre moo des. ah parce que boo nee euh, Guinée Bissau tey marché boobu marché. sous région voilà waaw Guinée Guinée Conakry sorewul waaw n'est-ce pas Diaobé sorewul Gambie taxu ko sore noonu n'est-ce pas un grand marché qui est là aussi c'est à 30 kilomètres. sous régional très bien donc sous régional la. Mhm. Euh, ñi xam Saligué je pense que euh, buñ ma a bu ñu déggee explication bi mën nañ ko comprendre facilement. ne reste que nga xool magasin yi ñuy. ni ñuy ni ñuy ni ñuy ni voilà juree Salikégné mm-hmm. à chaque mois am ku ñëw jóge Kolda jóge Bissau ñëw samp magasin Salikégné donc euh, mun nañu euh, ñaaw njort ne mun nañu am confiance que tôt ou tard suñu projet bi dina taxaw te déjà dans la conception pare nañ ci léegi lu des mooy rencontrer les autorités administratives pour ñu am accompagnement bu doy mm-hmm. parce que ku ne marché il faut que autorité yi accompagner la ku ne frontière mhm. nga xalaat douanier nga xalaat mhm. policier xalaat gendarmerie ah, donc sécurité surtout mhm. donc loolu moo ñu dese bu ñu amee loolu rek incha allah loolu mun nañ ko lancer te mu nekk ñu réalité waaw sécurité surtout parce que si frontière bi ngeen xaw a nekkee gis nañu itam li nga xam ne moom moo jëm ci trafic illicite de bois bi itam dafay am doole côté boobu yéen naka ngeen koy dundee bon euh, loolu nag euh, c'est vrai ñu ngi koy dund mais avec une distance à distance parce que euh, c'est-à-dire que ñi amuñu amuñu forêt mhm. amuñu forêt en réalité donc li ñuy dégg nii li nga wax ni ñu ngi koy dégg côté Yorofula mhm. ak peut-être yeneen communes yi mais commune Salkinié boo koy xoolee caso position bi amuñu amuñu forêt mhm. n'est-ce insécurité bu ñu waroon kii Euh, sukuyee mooy côté vol de bétail. loolu daf leen sonal foofu. waa daf waaw mosoon na mosoon nañu sonal mais euh, après avec euh, ay initiative suñu bopp suñu population parce que wax naa la sànq population bu nekk Salikégné ak population bu nekk benn côté Guinée-Bissau presque même peuple bi la. Mm-hmm. donc ñoom bu ñu toogee bëgg waxtaan bëgg saafara dara mun nañ ko mun nañ mun nañ ko mun nañ ko saafara. Mm-hmm. donc moo tax population bi moo développé ay initiative communautaire pour lutter contre le vol de bétail parce que sàcc bi bari nañu bari bari woon na. Mhm. mais bi ñaari communauté yi toogee. waxtaan waxtaan. ñu ñu ñu taxawal ay kuréel nga xamante mu dañu war a surveiller. frontière bi. Mhm. n'est-ce boo xam de sorte que yow boo nekkee Guinée-Bissau am jur am béy wala nag bu ko indi Sénégal. Euh, balaa ngay egg fa ngay dem euh, di nga di nga di nga wax lu set lu leer ngay wax <laughs> parce que il faut nga am ay papiers yu wóor donc loolu moom franchement euh, nekk na sax exemple si si si frontière bi ba tax na ñu bëri ñu ñëw foofu di inspiré wu <laughs> suñu modèle pour ñu copier ko seen seen dëkk donc côté boobu moom des difficultés côté sécurité amoon nañ boobu mais de plus en plus euh, affaire boobu vol de bétail nañ ko mais est-ce que euh, euh, kaaraange bi nekk ci yéen Salikégné ak diwaanu euh, Guinée-Bissau est-ce que frontière aar boobu noonu loolu dal na seen xel yéen. waaw waaw ñu ngi siy sant yàlla bu baax puisque. am na dañ naan frontière yi moom. sécurité manque de sécurité totale la koy gis. oui de façon générale dañu ne les frontières frontières sont poreuses. voilà parce que mën nga fi am poste de poste de police ou poste de douane. mais koo xamante ne bëggul jaar si poste yi dafa am lu muy euh, nëbb mm-hmm. waaw mën na contourner poste yooyu n'est-ce pas mais loolu tamit les agent de l'état ñu ngi jouer seen rôle te xam naa ne état yi état bi dina leen gën a jàppale dote leen des moyens pour ñu mën a gën a def seen seen seen rôle de surveiller la frontière mais bu dee entre euh, population bi la je pense que dem leen ci di dikkalante sans problème sans problème li ma wax nii c'est c'est vérifié mm-hmm. tey mën ngaa dem si benn village fii si ginnaaw après frontière bi fekk foofu ay jigéen yu xamante fii la ñuy juddoo n'est-ce pas ñu ngi sëy foofu la même façon que am na ñoo xamante ne ñu ngi sëy seen kii fii si Guinée sax la ñuy juddoo xam nga ñooñu wax a versa xam nga loolu euh, bu dee am nañ accompagnement accompagnement tuuti rek Euh, mën nañu bañ am problème. <laughs> voilà puisque kii nijaay mu ngi fële kii jabaata mu ngi. fii ba dugalante dugalante n'est-ce pas parce que dañu def nañu ñun frontière moom du barrage quoi du barrière. ok waaw donte ne ku nekk dina sam loo xamante mooy intégrité am. Hmm. mooy nekkinam euh, par exemple ñun sénégalais on sait ñoom tamit xam nañu ay Guinéens mais au delà de ça dañuy xam ne ay mbokk lañ. donc moo tax bon je ne pense pas que dinañ dem ba am problème problème sécurité à ce niveau. mais monsieur ñu jeexalee fànn boobu rek tey wàllum infrastructure ci biir commune bi xam nga itam cadre de vie lu am solo la. est-ce que yaa ngi xalaat loolu ci biir commune bi. waaw ñu ngi euh, xalaat bo xalaat si fànn boobu puisque suñu document de planification jël na ko en charge euh, commencé nañ ko sax mettre en œuvre puisque xam nañu am na population am na lu ñu soxla. boo ne jeunesse rek jeunes yi am na lu ñuy soxla soxlañ terrain wala stade sax léegi la ñuy wax mhm. parce que stade eh, kii bu ñu amoon mhm. dañ ko clôturer inspiré amal loolu sax mhm. puisque Salkinié ça a été toujours n'est-ce pas une zone où euh, les gens pratiquent énormément le sport n'est-ce pas euh, amoon nañu clôturer nañ suñu terrain c'était la première fois dans ça dans la zone ñu am un terrain clôturé euh, Euh, besoin nag mënul ñàkk parce que plus qu'on va de l'avant a de euh, am na ay ay ay besoins yu yees moo tax ñu bëgg anticiper si loolu parce que gouverner aussi c'est c'est c'est prévoir c'est pour pouvoir anticiper mhm. n'est-ce pas euh, moo tax ñu cibler ay ay places nga mhm. xamante ni il faut que ñu aménager n'est-ce pas te aménagement boobu commencé nañ ko depuis l'autre mandat euh, mooy am espace suffisant ah. n'est-ce pas mais en même temps mettre foofu un terrain multifonctionnel mm-hmm. boo xamante ne dina mën a permettre jeunes yi pratiquer. yeneen voilà sport yeneen sport parce que boo nee sport rek. voilà judo arts euh, basketball handball volleyball n'est-ce pas. mais te en même temps terrain boobu. mën mhm. na permettre artistes yi parce que tamit y a des artistes. léegi rapidement la nekk voilà fépp nekk mhm. donc artistes tamit bëgg a n'est-ce pas même bu amuñu salle grande salle de mais am nañu espace boo xamante ne mën na accueillir mhm. artistes yooyu dañuy teg seen podium mhm. def seen show et puis mu kii loolu Euh, dañu si dañu si anticiper parce que xam nañu il faut que euh, réew fi mu toll. il faut que chaque commune. voilà euh, mu am mu am besoin besoin boobu. moo tax ñun on a ciblé dañu ciblé. Mhm. ay six places publiques yoo xamante ne bëgg nañu vraiment ñu aménager ko. Mhm. def loo xamante ne ni jeunes yi soxla nañ ko. voilà bu ma nee li ñuy soxla du rek plateau multifonctionnel boobu rek non non. bari na am na yeneen voilà yeneen euh, yeneen euh, kii yi ñu fay def euh, de sorte que ñu am loo xamante ne yeneen jeunes yi ñu koy am si yeneen communes yi. loolu mm. dina ci am solo tey Massiré Souané la ñuy dalal ci émission gox bi moom mooy maire bu Salikégné ngeen regroupé yéen ngeen ne collectif yu nekk ci diwaanu Kolda maire yi su ma ko mënee wax noonu ngeen ne assemblée générale bii di ñëw ci AMS Mamadou Wuri Baylo jàlloo mooy seen candidat yéen fan ngeen teg lool. Oh oui parce que d'abord si si ñun la bokk euh, te si maire yi nekk région Kolda yëpp. Mhm. moom rek moo jóg mu ne. bëgg naa nekk euh, président association des maire mm-hmm. su waxee loolu te ñu xamoon ko ci euh, activité yooyu parce que moom membre la. Mm-hmm. AMS. Euh, nekk tamit maire boo xamante ne nga ñu a mairie plusieurs fois. Mm-hmm. mu am confiance nit ñi. puisque fu mu fu mu lu mu def. si si si bi AMS la moo tax. ndax jàpp ni am na expérience bu tax war a a jiite AMS. waaw am na expérience euh, tamit euh, wone na en tout cas euh, ambition am wala bëgg-bëggam que problème maire yi problème maire am solution. Mhm. puisque AMS du simplement une association. voilà de de maire boo xamante ne même parti la wala kii donte ñi fa nekk bokkuñu parti AMS c'est pas seulement les maires de la APR c'est tous les maires du Sénégal ah. n'est-ce pas te ku ne maire yi am nañu suñu problème bopp y aussi y a y la question du statut mhm. des des maires boo xamante dañ koy agi nañ agité nañ ko mhm. euh, am nañu aussi euh, euh, la question même de la, de la, de la subvention, des dotations qu'on donne aux pas, euh, source de financement, appui consistant bu ñu war a def au niveau euh, pour pour les communes. Mm-hmm. yooyu c'est des questions boo xamante ne man ñun de en tout cas au niveau de Kola. yëg nañ ni euh, Woury Baylo la Kaffrine Woury Baylo le honorable maire. Mm-hmm. am na en tout cas une réponse à toutes ces questions la donc dañu gis ni dafa maîtriser mm-hmm. n'est-ce pas euh, dossier dossier yooyu mm-hmm. te dossier yooyu mooy mooy yitteel na maire yi mm-hmm. puisque ku nekk ku nekk maire en tout cas il est assez sensibilisé te jox nañu ay piste de solution mooy programme am nest pas moo tax ñu discuter à l'intérieur ñu ne comme euh, demee na ni euh, ñun en tout cas maire yi nekk Kolda jàppale pare nañu pour ñu jàppale ko bu dee candidature am dina dem jusqu'au bout. mais mais du maire yëpp parce que dégguñu maam booy jaawo ne dina ko jàppale euh, loolu tamit problème la maam booy jaawo Kolda la nekk mooy maire bu Kolda. Ah, waaw la di ko jàppale. mais dégguñu parce que danga ne maire Kolda yëpp mais maam booy jaawo dégguñu ko ci. waa mais te photo bi ngeen def. Euh. ngir wane ko euh, gisuñu ko ci. <laughs> waaw loolu c'est vrai mais loolu c'est duma ci sori puisque heureusement néew ma ne dafa génn def une sortie ne moom d'accord voilà bu ko defoon peut être euh, ma am ne mu ci wax. Mhm. mais en tout cas ñun euh, kii ñu ko bëgg a jàppale li ma la expliqué noonu la demee dafa ñëw tegal ñu programme am. ngeen ñu ñu mais est ce que du am problème parce que gis nañ AMS ñu koy xëccoo. meeru Latmingué meeru Gaya El Hadj Malick euh, bon meeru Gaya ak ki nga xam ni moom moo di Omar Ba meeru Ndiop mm. ñoom ñeneen bëgg nañ jiite AMS mm. est du am. am tey frustration wala arbitrage bi ki ko war a def du njiitu réew mi mooy président Benno Bokk Yaakaar. Hmm. non non l' essentiel moi bi bu ñu ko yóbbee foofu débat bi mooy c'est entre les maires suñu association la. bu dee am na ay. Massiré président Macky Sall mooy président coalition Benno Bokk Yaakaar munoo leen def leneen loo xam ne. Euh. dugal si loxoom itam. en tout cas fan ne dafa xam mooy euh, c'est à l'occasion de l'assemblée boo xamante ne maire y la ñuy nest pas c'est à l'occasion de cette assemblée la ñuy taxawal bureau AMS mm-hmm. n'est-ce pas te bureau bi am na ay charte am na ay postes yoo xamante ne obligatoirement ça revient à am na ay position xamante ne opposé opposition ak majorité mën nañu ko xëccoo mm-hmm. n'est-ce pas léegi nag il faut s'en féliciter nest ñu am ay multitude de candidatures ça que euh, démocratie y a une démocratie là-dedans. yooyu yëpp ci biir Benno la de. bon pourquoi pas. pourquoi pas peut-être ñoom ñoo am enjeu bi ñoo am ñoo xam lu tax ñu mën a euh, nekk ci bopp AMS n'est-ce pas peut tamit ñooñu lañu déggagum xamuñu parce que euh, kii bi c'est pas aujourd'hui c'est pour le mois de juin moo xam avant loolu est-ce que yeneen candidature dëkk kii est-ce du du amaat yeneen candidature encore mais yéen yéen a ngi battre campagne déjà ah mais ki am candidat il faut que nga nga nga bat campagne n'est-ce di gën a di gën a di gën a gëstu di gën a dugg si nit ñi waxtaan ak nit ñi ba xam voilà puisque euh, man je pense que post boo ko laaj c'est pas pour le plaisir. man rek ma la ñëw nga mate ko voilà nest te euh, li poste bi laaj il faut que nga nga maîtriser ko. man loolu gëm naa ko voilà moo tax waxtaan bi du du mën a du duñ ko mën a arrêté il faut mu continuer jusqu'au jour J voilà en tout cas ñun au delà même de la candidature de de Woury Baylo waa Kolda bëgg a jouer un rôle ci élection si si si AMS oh des des des des hommes de ay ay yoo xamante ne il y a pas que de gens yoo xamante ne mën na yëkkati seen loxo nekk mm-hmm. candidat n'est-ce pas mm-hmm. donc au-delà du président ñun dañoo bëgg a jouer un rôle dans l'association parce que gis nañ ne mm-hmm. am nañu compétence boobu te am nañu maitrise décentralisation pour euh, pour xam réellement ce qu'il faut. faaw ngeen def si jéego daal. Euh, effectivement. ok euh, wax ci wàllum politique génn nañ ci élection locale yi yow gagné nga sa sa sa gox kon xanaa Massiré moom mën na yëkkati loxoom ne assemblée nationale bii di ñëw dana fa dem dama ko force ci weewu béy ñu ngi koy waxtaanee que ni da am ambition nekk candidat ci département bi. non non loolu moom je pense que on est un ou bien une coalition très bien organisée. am nga yéene bi. non loolu encore une fois man euh, am nga am naa deuxième mandat mais deuxième mandat bi man néew ma rek yëguma rek ne man maay nekk candidat APR n'est-ce pas on était dañu bëri woon parti bi tànn ma ne wóolu nañ ma pour ma nekkaat candidat. mu ngembal waaw ma nekkaat candidat. au noonu de la paire au nom du Benno ma nekk candidat commune Salika donc lii tamit bu ci tollee dañu war a déglu parti bi parce que parti bu organisé noonu lay noonu lay mel ku nekk mën naa am ambition n'est-ce Euh, ou bien sañ-sañ ça parce que yenn ñi du ambition sax c'est osé même n'est-ce pas mais je pense que euh, le le parti est assez bien organisé pour que ñu bàyyil ko question boobu traité ko mhm. d'autant plus que on est même pas un parti on a on a une coalition de parti n'est-ce pas boo xamante ne léegi dañ ko élargir yaa ngi koy dégg chaque jour ay maire jógee yeneen parti yi ñëw. est-ce yaakaar nga ni loolu mën na leen gañeel yéen tey élection le fait que maire yi jógee yeewu ñëw jàppale leen loolu est-ce mën na leen gañeel élection yi. non boo nekkoo majoritaire nest pas ba pare pendant combien d'années n'est-ce pas nga gis ne du du chaque jour am ñuy ñëw fekk si la je pense que loolu yow du wax sax nit ñi ñoo wax ñoo ñoo lay waxal. mun na dal xel quoi si yéen. non yéenay ko observé yéenay koy. laaj la ba xam ñii ñëw. mën na dal seen xel. non def lan kii bi rek étudier rek. waaw koo xamante ne ma dafa majoritaire depuis. mais Thiès Idrissa Seck ñëw leen jàppale leen après local yi gis nañ ni mu demee foofu. exemple la koo xamante ne dafa majoritaire pendant des années. <laughs> chaque élection mu gagné largement. nga gis chaque jour am ñoo xamante ne jógee ci opposition ñoo fekk si kooku war naa tiit war na war naa war naa sant yàlla en tout cas de lu weer noonu laa ko gisee. waaw. <laughs> am leen si benn problème <laughs> kon euh, jox nga carte blanche président Macky euh, mu tànn la wala mu tànn keneen. non loolu mooy logique politique bi. Ah. parce que ñun on a euh, moi je suis je m'aligne dafa am discipline de parti boo xamante ne man bi ma dugg si politique si loolu yoon boobu laa nekk. Mhm. voilà dama am samay conviction si je dois défendre quelque chose je défends. mais dafa dafa dama jàpp ne. chaque sos à son temps. te loo gis amet am na ku ko war a ku ko war a ku ko war a ku ko war a moom. voilà bu jotee rek bu jotee rek. voilà léegi opposition bi nee nañ cohabitation moom lañ bëgg ci élection bi euh, lu la nga mën a xaar la wala. cohabitation. assemblée nationale. mooy cohabitation bi ñu waxee loolu lan lañu bëgg a wax carrément. ah tabb premier ministre xanaa. affaire <laughs> ah, ah. ah, loolu am nga élection moom ku ciy dem doo ne man damay dem pour perte wala pour am de da ngay viser le sommet waaw li si des moom sénégalais ñooy ñooy ñooy kii ñooy départager. opposition bi gëm nga ni dina gagné élection yi. population yi ñooy partagé dañuy dem ay élection li jàll ni élection locale la. mais ñoom tamit def nañ percé. lu nekk dégg nañ ko. non ñun moo gis ñu percé ba parce que ñun fii fi ñu fu ma soxal man mooy Kolda. Mm-hmm. Eh? Mm-hmm. ñun on n'a pas vu leur percé. toutes les communes là ñu ñoo leen ñoo ñoo gagné yëpp te sur le plan national li xeew bu ngay jëlee résultat sur le plan global nga xam nu comment ça s'est passé mmh. monsieur le maire ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax émission bi mi ngi jeex ñu bàyyi la nga tàggatoo ak ñi nga xam ne ñu ngi doon déglu. Mmh. merci beaucoup euh, maa ngi lay jaajëfal yow tamit di nuyu ñi nga àndal di di la ñaanal yéen tamit seen groupe. Euh, yàlla jàppale leen <laughs> n'est-ce pas fu ngeen gën a ngeen egg fu ngeen bëgg egg inchallah euh, puisque lii nii d'abord euh, loo xamante ne métier bu noble la te occasion la pour nit ñi mm-hmm. ñu dégg ñu au delà de nos frontières que man boo nee Salou Kényé foo fekk koo dem li ma wax ni dinañ la wax ni wax nañ ko wala dégg nañ ko ci moom mm-hmm. n'est-ce pas mais tey boo ma boo ngeen ma joxee occasion ma wax waa Sénégal dégguñu wala àdduna bi dégguma parce que euh, war naa leen ci sant euh, di nuyu aussi n'est-ce pas yu ñuy déglu di leen ñaanal ñu jéggal ñu ci kàddu yi puisque voilà <laughs> voilà donc euh, suñu ambition c'est que lu ñuy wax mu mu leer. Mhm. n'est-ce pas euh, nit ñi mën ko comprendre. voilà mais je pense que euh, lii nii euh, benn exercice boo xamante ne. Mhm. dañuy fale ko ñu def ko. pour ñu mën a waxtaan ak yéen. Euh, te tamit euh, wax ci suñu commune. Mm-hmm. loo xamante ne même à n'importe quelle heure bu ñu nañ euh, sabar si wax loolu puisque depuis longtemps ñu ñëw yëkkati suñu loxo ne bugg nañu doon maire mm-hmm. donc bugg nañ nekk en tout cas un acteur politique dans commune. Mm-hmm. ba lii si suñu. donc ñu jàpp ko ci fukki loxo ñu ngi def li ñu mën te tamit je pense que. population bi confiance bu mu amoon si ñun moo tax ñu joxaat ñu sama mandat mais pour ñun du victoire euh, invite la rek pour ñu gën a góorlu n'est-ce pas parce que gis nañu population bi seen li ñu soxla bari nañu lu commune bi soxla bari nañu mm-hmm. moo tax il faut que ñu jàppee ko noonu c'est pas une victoire mm-hmm. mais voilà continue invite la quoi pour ñu gën a góorgóorlu te loolu incha allah ñu ngi compter sur l'état Eh, te wax naa ko sànq am na lu ñu defar comme signe loo xamante ne mën nañ euh, jàpp ne état bi euh, pare na pour jàppale mu ngi continuer dañu dañu jàppale n'est-ce moo tax ñu si sant tous les ministres n'est-ce euh, ak surtout le président de la république parce que naa bépp maire pour man Sénégal mhm. bépp maire bu jël parole dafa war a sant président parce président Euh, moo tax maire yi bëri maire yi bëri di recruter tey boo gisee Sénégal di recruter ay agent hmm. c'est pas parce que ñun am nañu moyens yooyu sur place non non parce que état bi mooy ñuy jox moyens yooyu à travers l'augmentation des fonds de dotation mais à travers sel bi sel boo xamante ne mosuñu ko xam si président lañ ko xamee donc moo tax moo moo ñu permettre hmm. communes yu bëri di def ay recrutement nest pas donc ak yeneen euh, euh, direction euh, de de de l'État. Mhm. mun naa si tudd FERA. nga xamante muy accompagner communes yi. Mhm. pour que ñu def entretien yoon yi mais en temps en même temps permettre. Euh, de créer des de, de l'emploi dans dans les communes. Okay. donc je pense que su ma mënoon naa lim. listé mais ñaar exemple yi rek war naa mën a tax ñu gërëm président di di pare pour gunge ko. parce que vision ça va au-delà au de ce que les gens puissent peuvent comprendre te ñun comprendre nañu vision moo tax euh, fu fu ñu nekk il ñu ñaanal ko Euh, gën ko rappeler aussi su suñuy suñuy doléance parce que on sait que c'est quelqu'un qui sensible mhm. n'est-ce pas à certaines questions ah, moo tax <clears throat> ma leen di remercier nga may occasion mhm. di revenir mhm. su les en tout cas besoins yu salke yi waa am euh, pour au moins ñu am un accompagnement suffisant euh, de l'État pour ñu mën a leen réaliser maa ngi profiter occasion di baalu ñàkk ñëpp ah n'est-ce pas Eh, di leen souhaiter euh, bon fête. Mm-hmm. Euh, ñu fekkee ko. ay ati ay ati solo euh, vraiment te jàmm. sax suñu réew mm-hmm. ñu gën a fonkante. ñu mm-hmm. gën a jàppante te ñu gën a euh, am confiance suñuy institution euh. jërëjëf kon boog mbokk émission bi fii la daal di buuree Massiré Souare moom moo nekkoon suñu gan mooy maire bu Salikégné jox leen dig daje beneen dimanche beneen invité fii ci rajo Rewmi FM di leen wax rek feetub jàmm feetub korité di baalu ñëpp ak di baalu ñëpp ak ci li nga xam ne moo jëm ci koor gi nga xam ne nag moom la ñu euh, jóge di leen baalu ak bu baax a baax déwénati